الوفاء وحق الغناء ربنا ما تجده وطنا إمام كسرى على صوت سيدنا محمد وطنا إمام كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء ربنا ما تجده الخمس من حبه أسرت عن ليلة الغراء أنا مكان قد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك وتتيهم يا نور الشمس يا نور جنبه وأنا تقول أبدا يا رفيع الأخلاق يا لك بالمراد بمثلات الجلال على سوء بميسر محمد لم يرنا jógee fi dem toggi sa ndogu kon bu jëlee temps bi nag ba jeex dootu day métti nu bëggoon nag maam Limaamul Mahdi si seen ngir yi toog yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla yàggal ci sunu kanam doonuwul bàyyam waaye da koo doon ndax kooku Alaaji Taala Siise xam na meloon xam maam Mahdi mii di nga xam moom doonuwul bàyyam waaye koo doon yal na ko yàlla fal cet muy sutub Sëriñ Cere Ba muy sutub maam Amari Ndaat fa tabarakallaahu kon dañuy jël nag tàmbali conférence bi bu ko defee nag bu ñuy conférence dañoo bëgg ku dikk rek da nga jël place te mënu waxtaan ndax conférence ak waxtaan mënuñoo ànd ab jotaay nag ñooy waxtaan ñoo ko yàq kuy waxtaan ak yow yaa bokk ñu yàq jotaay bi waaye kii déglu man cee jël njëriñ ndax boo gisee ñu ne conférence dañoo bëgg ni maam li maamu maa bi fi jógee man cee am njëriñ yóbbaale ko sa kër ti di ko jëfe loolu moo tax ñu naan conférence dañoo bëggoon fi sawet nag microcentral bi dama ko daan yor waaye ba tey sax maa ko yor waaye dama ànd ak suma jigéen Adja Bambi Ka waaw moom itam nag tey dama koy jàppale ci microcentral dama koy jàppale ci microcentral bi ah déedéet man dama lay jàppale rek ko bokk waaye dama lay jàppale ci microcentral bi ñu bëgg nag bala ñoo waaw ñu bëgg nag bala ñoo commencé bu ñu joxe ñaan eh, ma jox Adja Bambi mu sànni ay kàddu bu ko defee ñu soog programme bi ajibaam bi am sunu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñi fi teew yépp comme ni ko sama papa ma kur a waxee ma joojo moom laa fekk si ñu yàgg ànd ànd bu rafet ci rajo bii di animé animation yu am solo euh, may gërëm bu baax jigéenu cene ba di ci jaarale ki nga xamee ni mooy Fama Diop ak ñoom Saasum Sey Nogay Saw ñi nga xamee ni dama ni ay jigéen yu jàmbaar lañu ay jigéen ñu nangoo liggéey lañu ay jigéen ñu takku lañu boot jigéen ñu Thiénaba yépp commune ñu Thiénaba yépp tey ñoo fi daje bu yàlla dogalee ñuy chaque année ñuy organiser conférence boo xamee ni dafa jëm ci yàlla ak yonent bi surtout rawatina ci jamono ji nga xamee ni dafa ne dafa dañ nekk muy jamono bu xaw a metti di jawoon jamono bu doy waar ñu toog ni kat suñu conférence ren dañoo fas yéene waxtaane jikko yi nga xame ni dafa yàqu ñu gën delloo si nit ñi ñu gën a xam ñun ñooy ñan ñun ñooy kan ñun ñooy lan ngir ñu gën a mën a taxawaat gën a mën a defaraat suñu société ndax dañ naan société kat boo nee góor ni jigéen ni mag ni ndaw kon bu fekkee dañoo am suñuy valeur ñun ñu xam ñooy ñan valeur yooyu dem ba mu nar a am crise ñu war gis ku baax ku sell di suñu doom di suñu xarit euh, ma suñu xarit bu sell di suñu doomu xarit suñu papa Baye Talla Cissé jur ko. maam Limaamu Maadi Cissé. maam mhm. ñu jàngee ci papaam lu bari. ndegam ñun ñii dongo ñoo jàngee ci papaam lu bari ak sama moom mi doomam. tey mu fas yéene ñëw waxtaanal jigéen ñi. bu ne crise ni valeur lu ku ne xam na ni ñun Sénégal. ku war nga xam yaay kan ak yow yaay fan ak fan nga bokk ak lan nga moom ak lan nga moomut kon suñu toogee ban ni kat dañoo xool ni jikko yooyu dafay fas yéenee bëgg a yàqu ñu woo kilifa gu sell mu fas yéene te waxtaanal kon li am mooy dañuy ànd ak déglu ànd ak teewlu mën a taataan loo xamee ni bu ëllëgee nañ ko mën a delloo ci kër yi mën cee weccanteeg boo borom kër yi mën cee weccanteeg doom yi ngir lan li ñu amoon démb ca mu nar ñoo réer ñu mën koo delloo si waat xam ñun ñooy ñan ak fan la ñu jógee rawatina fii ci Thiénaba fekk di dëkk bu sell boo xamee ni képp kuy root wala ngay taataan fii ngay ñëw roote si fi taataan si fi lu sell lu baax kon defe naa ni buñ fas yéenee waxtaanal loolu kon jigéen ñi li ñu bëgg ngeen gën a toog gën a dal gën a déglu bàyyi ko xel bàyyi ko nopp ndax dañ ni kilifa yi egseeguñu waaye dañoo am lu am solo loo xam ne dañ ko war a waxtaane kon dañ ko war a déglu sama papa loolu laa amoon rek lu ma ci sànni di sant nag jigéenu Thiénaba yëpp di leen ñaanal yàlla lii ngeen yàgg di organiser yàlla ngeen ko yàgg mën ndax ni ngeen mën a liggéeyee ci développement noonu ngeen mën a liggéey ci diine mën a liggéey ci l'islam ci li nga xamee ni Euh, sant nañ leen ko mën koo liggéey ci kër yi kon mën koo liggéey ci njaboot gi kon yàlla leen yàlla jàppale yàlla gën leen a dooleel gën leen a kàttanal boobu lu ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man lu ko ma leen di jéggalu bu baax jërëjëf. tey bis bi dañ ko séddoo day ñetti conférence muy conférence bii ak conférence bu sëñ na Seck bu sëñ Madika Seck borom Galane ca place de France Thiès ak conférence maam Ndiol Bataal ca Mbour. ñii ñu ngi jëm Mbuur ñii ñu ngi jëm Thiès waaye ñii ñu ngi fii loolu moo waral mbir mi léegi nag dañoo bëgg bu ñu joxee conférencier bi ginnaaw bu ñu joxee dog ñaan ba pare éliman ji egsi ak i xaritam Mansour maa ngi nuyu sama rak dañoo bëgg nag bu ñu joxee conférencier bi wax ba pare ñu jël parrain yi jël seeni parole bu parrain yi jeexalee balaa marraine yi jël am na ñu fi war a honoré honoré dafa leen ay honoration maanaam remise de bu ñu leen ko joxe ba pare nag soo ko jël marraines yi ñoom tam ñu jël seen i parole lu ciy tegu sottee tegu kon dañu bëgg ñu joxe dog ah suñu cheikh kontaan nañ yal na yàlla gudd fan ñu joxe dog ñaan bàyyi nag maam Madi yu Cissé xam nga tur yi daa màgg nag maa ngi leen maa defee mu jël kàddu moom itam eggale conférence bi fa tabarakalla kon joxeel dog Cheikh Ndaw joxe dog xam nga tax Baye Alpha Mamadou bi mu nekk xalif général daf leen képp ku may jox addiis waaye boo te gis sëñ mën ndaw boo gisee jox ko ndax lew na ko doom kon bu tamoom toogee ni Cheikh nag ñu ko joxee ñaan mamari ñu ko joxee ñaan loolu jekk na jaadu na yàlla na kon Cheikh joxe ñaan Thank you. amin na koy wax amin alhamdulillahi rabbil alamin man fala ya ta'ala ya ta'ala ya ta'ala ya ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loxo ca kaw yaay amina ta kuma ku yoon la loxo ca kaw yaay عليه وسلم من نوره وجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلائق بالإطلاق الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam wa qaala fi muhkami tanziilihi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruuf wa tanhawna anil munkar alhamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma salli على سيدنا محمد سيد البشر وشفع المشفع في المحصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi sant yàlla bu wér. waaw bu wér mi nu mayoon ñu toogoon fi ci koor daaw defoon lu mel nii diggante booba ak léegi lu bari xew fi nag lu bëree bëri xew ñu bëri génn nañu àdduna ñu gas suuf suul leen ñun yàlla may ñu ñu fekke daw fekke ren kon ñoo ngi koy sant bu wér di ñaan yàlla yàlla nañ fekke koor déwén góor gu baax gu tëdd Baye Alxaaji Taala Siise yàlla yàlla yërëm ko moom ñoo fa nekkal yëpp da wax naan yàlla naa fekk déwén jóodit saan woo sànni la mu raw say nopp raw say bët bala ngaa dégg kàng saan woo rek danga ngaa fekke déwén kon ba nuy taxaw daaw naan yàlla na nu fekke déwén xamuñu woon fu déwén nekk tey jii mooy déwén si ñun saan wanu sànni woon saan wa raw suñuy nopp raw suñuy gët tey jii dégg nañu kàng saan wa yàlla na nu sànniwaat muy yàlla na nu fekkewaat déwén yàlla na ko wax waaye yàlla na ko fekke it si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na soxla lu mu bul jàmbat kenn bul wax kenn jullil si man rasulillahi yàlla faj sallu alayya li qadaai xawaijikum ci ne ku la ëpp lu muy julli ci sayidina muhammad moo la gën a dal moo la ëpp wërsëg moo la gën a teey kon ñoo ngi julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ñu jiital ci nuyoo bi jigéen ñu tedd yi jigéen yu baax yi jigéen yàgg naa sagal diine islaam jigéen yàgg na sagal diine islaam bu dul woon ak yaa xadija diine islaam du sore xadijatun sakkanat lil qalbi qaa'ilahu lam yu'sika allahu fi daarayni laa takini bi yàlla yónnee Seydina Muhammad bu ko fekkul woon ak jigéen ju mat sëkk islam du déplacé benn jéego kon islam bu jéggee jéego jigéen loxoom moo nga sax islam bu doon garab la deret ji ko njëkk suuxat deretu jigéen la muy Sumayya moom lañu rey rey bu ñaaw moo njëkk faatu ci kon jigéen yàgg gën a honoré islam Sumayya biñ koy rey dafa ëmb ñu takk ñaari giléem benn bi ci tànk ndijoor benn bi ci tànk càmmoñ ngir Sumayya saaga Seydina Muhammad loolu rek lan ko wax saagal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasan su ma yore fa xas Seydina Muhammad ñu jël gileem takk ci tànk ndijoor jël gileem takk ci tànk càmmoñ dàq gileem mu jëm penk day jëm saw su may xar si digg bi xar xottee ko deret ja tuur mooy jigéen ji ñëkk a doon martyr si islam kon jigéen yàgg naa honoré yàgg naa honoré islam Serigne Assane borom ndigal ak Serigne Aliou moom mooy Serigne Talla Xaar sëñ Adam ñoo ngi ziar baax sëñ Seck moom Seck waaw amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin waaw waaw incha allah jéggi ñu fi xaw a xat يا سيد ñu dalal seen kilifa yooyu daa mel ni monsieur le maire mooy yow sëriñ As moo ngi di ziar baax mu ngi nii suñu liggéey suñu xarit monsieur le maire mooy ëpp si noonu هدايا ليذكروها بيته فغير مقدور في أقدار عليهم مخالفة من قال ما جبر وما ثم زادته فأخذناها هدايا ليذكروها فهو غير مقدور في أقدار ndax man Seydina Muhammad li ma yàlla yónni woon jox naa leen ko ñu ni ko jotal nga waa sëriñ aada bu loolu amee ñu def ab diir yëgaat ni jikko yi yeneen ci bi defaroon yàqu na question bu ñu war a njëkk a posé ñun ñëpp mooy est-ce que du ñoo bàyyi njàngaleem Seydina Muhammad est-ce que du loola ndax Ibnu Muhayyab danoo waxoon ni badaa wa biqaa'ul ardi zulmun wa zulma mu yonent bi def fa ashra'at al arja wa nxasha al karbu kon bu demee ba yëg ni ibnu ma yëg nee na Seydina Muhammad fi lu baax lu rek la fi fekk mooy yàlla tooñante fen jiw njaaloo loolu rek la fi fekk waaye fa ashra'at al arja wan xase alkarbu yonent bi dem ba loolu lépp muy jikko ju bon ji ñuy wax ñun ñëpp jikko yu yàqu yëpp yonent bi raxas ko ba mu set wicc fa ashraat al arja wan xase alkarbu indiwaat faneen ni falaa tibbu maxduumun wala nuju murja'u feebar bi nekkoon ci société bi yonent bi fekk na ba feebar amatul waa léegi bu ñu demee ba feebar amat jikko yi yàquwaat jàngat bu simple la mooy la la fi yonent bi indiwu fekkoon ba raxas ko jële ko fi bu loola ñëwaatee du Seydina Muhammad échegul du sunu maam ñu échegunu ñun ñii ñoo échec te li waral échec bi mooy danoo amatul repère wala ñu jëlu référence bu bokkul ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fay mais jàpp naa ne sëriñ aada bu ñu jàngaatoon yonent bi wala fam ñu woon ñu toog fa de valeur du am ndax yàlla moo nu wax ni royloowuma leen kenn ku dul Seydina Muhammad yàlla leen kenn ku dul rasulullahi daan ni wa innaka la ala tatalluin azim yàlla wax ñu ni yonent yàlla Muhammad man yàlla maa ko xam yéen xamu leen ko waaye maa ngi leen di seedeel ni man mi leen ko reyloo maa jikko yonent bi jikko lépp baax amul mu ni bi ma ko defaree ba mu doy mu sëkk si jub wax dëgg maanu tabe dal sell ba jikko yëpp mu ni si laa xamee ne nag baax il faut ngeen moo tax ma royloo leen ko yonent bi ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yonent yàlla muhammad ni yàlla ma yar man yonent bi nu ma mel yàlla la du bàyyi du yaay waaye fa ahsana ta'dibi yar bi ma yàlla yar yar bu ma sëkk la ibnu muhayyib waxoon ñu ni falama udila alqurba min waqtatin min waq bi yàlla yónnee sayidina muhammad yónni jibril mu fekk ko ba xot sayidina muhammad ni ko iqra fekk lu ko jiitu jikko yu yàqu yi roqe gan ngii ñuy wax tey amoon si adduna yeneen bi seen ko ba xam nga ni avant boobu góor daan am ñaari soxla ñaar génn àdduna doomu taaw bi doon ñaareel yi bàyyam dégg nga li ma wax avant yonent bi ñëw jikko yàqu woon na ba àgg si góor bàyyi ñaari soxna génn àdduna doomu aawa bi doon tàntaan di sëy ak doomu tànta bi doon aawa bi di sëy ak moom te jigéen sëy ta doy jikko ak góor na fii waaye falammaa udiya lahum qurban min nawa ata'naa bihi min ghamrati al-ghaybi wa al fa ashra'at al-arja' wa in'asha al-kalb jikko na fi góor yor soxna dem ba soxnaam neexatu mu yóbbu soxnaam ci marché bi teg ko daal ni sama soxna neexatuma am ko ñëw ne sama soxna neexatuma ñu waxtaan ñoom ñaar déggoo ku nekk weccoo ak sa morom ñu dem jikko ab góor de fii fa ashraat na si ba bu nee la am nga doom ju jigéen da koy gas suul indi wa izal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat jikko imagine am doom di jigéen gas ko suul te yow mi koy suul jigéen mooy sa yaay yow mi koy suul benn soxna si ngay nekk jigéen la waaye nga am doom dal na sëriñ Seydina Omar ibnu Xattaab am na doom ju jigéen doom ji dafa doom ju jigéen day taq baayam Omar di ñëw doom ji daw songu ko Omar gis doom ji ñëw rek mu yëg ni ànd gàcce ndax am na doom ju jigéen ju nekk këram Omar këf doom ji yóbbu àll ba di gas sikkim bi di laal suuf si doom ji di ko fëggal suuf si jël ndox di jox baayam pour mu naan nan naka baay bi day gas pour suul doom ji booba kon nit ñoo fi nekkoon Omar jël doom ji gas ko suul Seydina Muhammad ñëw kon ñun bu nu toogaatee ba dem ba yëg ni jikko yo Seydina Muhammad dindi woon amaat na ci suñu biiri kër jikko yi yonent bi dindi woon amaat na ci biir penc bi jikko yi amaat na ci biir société bi bala ñu posé question ñun ñoo war a demander est-ce que perdre duñu repère mooy roykaay amatuñ ko wala boog dañ fee bàyyi ki mu yàlla royloo roy ka waaye bu ñu rayoon Seydina Muhammad rek yàlla xam na ko lii du am te lu am la crise lu ama am na sëriñ aada li waral fiqaas li waral jikko yàqu ñaar képp laa koy résumé mooy jom ak ngor moo amul ci si jom ak ngor la yàlla dindi si adduna amul koy àndal amul kenn koy àndal te xalaat ni bis mën naa jot muy war la dem ba léegi koy waxa sa téléphone yaa ngi mesuré li ngay waxoon moom ndax danga naan mën na ma mën léegi kenn ñimetu la wax sax li nga sentir su ma nee maa ngi naan est-ce que enregistré wu ma kon war ak jom moo des ngor boo amatul ak jom ngor bu amul weerante bi du am tey gis nañ ko ñaari nit ñu ànd ñetti at sa dàqali koowul yombatul kon ana ngor ak jom ñu dem ba yëg ni nag jom ak ngor bi mu amatul ñun ñëpp wala li ëpp ci ñun ñu baal ma ci ñëpp ji li ëpp ci ñun ñett da leen xaj adduna benn bi mooy alal alal yàq na jikko yëpp alal yàq na yëpp yaa gis ki am alal li muy def mu jib ko yow mi amul alal bul ko jéem boo ko jéemee du la jib ki am alal li muy wax ni ñu accepté ko ko yow amul alal bul ko wax boo ko waxee du na sa juddu amal lu ne waaye amul alal booy boo nga xam fi ngay yem xamoo dara sër gi bu rëyul ma benn jug nawul damay jàngale waaye am nga alal loo wax gonga baatu alal moo yàq adduna wutin wi tey société bi la da nekk si kër yaag sama mag wala sarak mu ëpp la alal yaa ko mag yow kenn considéré wu sa rek am na alal lu mu wax noonu la lu mu def noonu la yow mooy mujje nu may def ba am alal dinaa ko def ak nu ma ko amee bu boobaa sa jikko day ñaaw kon alal dañoo jiital beneen bi mooy daraja daraja tax na ba jikko jikko noblesse jikko jooju amatuñ ko kon bu nu demee ba yëg ni ngor amatul ci àdduna jom mooy jomb jomb xam nga jomb jom mooy jomb dara euh, nit du rus bàyyam nit day jomb dara yaa ngi boo rusee sa bàyyi wala sa yaay nga rus leen wala nga ragal leen heure boo jàkkaarloo ak ñoom doo def lu ñaaw doo ko wax waaye boo génnee boo wéetee def lu la neex waaye boo jombee loola buñ toogee doo ko def buñ toogul doo ko def sunu yaay yëpp ak sunu bàyyi xam nan ni xale canaba bu daan génn da naan ko naan jëlal bent ni di yóbbaale ko mooy foo nekk def ko muy canaba loo fi rus rus ko foofa loo fi jomb jomb ko foofa mais léegi loolu amatul loolu amatul beneen bi nga xamante nag moo yàq jikko yi mooy nës nësal nës nës la jigéen ñi bàyyi taal dara wax naan jigéen du gaaw a xam ñetti mbir jigéen du ko gaaw a xam nee na jigéen du gaaw a xam wilaaya ak borom këram dee dem aras ak a ñëw li muy séq ak yow a tax gëm jigéen bu gëm ab sëriñam yombul jigéen bu gëm jëkkëram yombul bu gaa yi raam moom na xaar gaa yi raam joxe addiya après mu faj soxlaam ba na si jigéen bu gaaw a xam wilaayam jëkkëram moonte bu ko teeloon a xam jur doom bi jëppi coow waaye du ko yéex a xam beneen bi mooy jigéen bu gaaw a xam mbaaxu wu jëm monsieur le maire jigéen day nekk wu jëm si kër gi muy baax mu naan day jógee jongale day jógee seetaan ko rek mënu si dara li muy def nangam fekk kii day jënd doom ju baax ñëw nga topp bala ngaa xam ne daa baax mu jur luy àtte kër gi jigéen nit du gaaw a xam mbaru doomam dan naa bañ dan naa iñaane yow la ñuy gis defoo leen dara danga nga màggagul boo màggee ñu bàyyi la bàyyi taale nee màgg la jëriñ ñaan baax la jëriñ ñaan nee na ñu màgg rek fa nekk bàyyi taale fi sa nee la jëriñ ñaan baax la jëriñ ñaan kaso yi ñu màgg rek a fa nekk kon chute de yooyu looloo ko jur ñu dem ba benn xadis bu Seydina Muhammad waxoon buñ ko jàngatoon rek doy na sëkk àdduna yonent mu ne ayatul munafiqi salaasa ñetti jikko ngi nii yonent bi nee na képp kooku sin ak ku mu doon jàpp ne mooy koo xamante ni isaa sa kasara lu wax ji neex neex neex il faut que mu rax soobe dara wax lu dul dëgg am ñoo xam ne yàlla leen nattoo du baat ma ci baat bi fen bu ñu xëyee sa fen ñu du féex day mel ni ginaar gu gu war a mel noonu muy taxawaaloo am na ñoo xamante ni fekk fen ñu rek amuñu jàmm il faut que ñu fen a fen ba ñàkk kaa fenkat buy commencé daan la ay dëkk bi su mën a tàyyi de déglu ko rek maanaam bu bu tëb tëb rek ñu ne ko rajax da ay cee waay caa ñoo mën a coow nga ne ko ah mu ne adda ñëwaat tekk ne la dëkk bi de moom temps yii coow rek ah moom jiw de moom rek commencé nag yonent mu ne koo xamante ne lu mu la wax waxul dëgg yonent bi ne kooku naa fekk mooy ubbi bunt fenkat bu gaaw a ñëw rek ne ko rajax dina ubbi buntu dëkk bi moom temps yii yëpp ngeen kii moo ah moo diw gën nga ko gis nga ne ko nangam ba mu àgg yonent mu ni koo xamante ni lu mu wax du dëgg lu mu wax dina sarax nee na booy jàpp ab naa fekk jàppal ko kenn loolu isa xadada kasaba te li gën a neex ci fen yaa ngi fen ñu baal ma ci kàddu gi de Serigne As kii fen moo la gën a xam ne day fen dafa am lu yàlla def ci biir nit muy ab damir booy fen mu naan la ah sa waay yaa ngi rek mu naan la sa waay teggi sa li ngay du dëgg de waaye da ngay dem nga dominer ko mu ni teg yonent isa xadasa kasaba wa isa waada axlafa koo xamante ni loolu leen waxante joxe ko dig rendez-vous mu fonkul kàddoom lu mu la wax day dëñ yonent bi nee na booy jàpp naa fekk jàppal kooka booy jàpp naa fekk jàppal kooka wa ida utmina xaana koo xamante ni boo ko wóolu mu war la ci secret damay am secret ku may jël exemple xaaral ma jël sóora mbub daanu sóora secret bi ne yow rek laa ko wax yow rek da sama xarit wax ko suñu rek soo di seex ndaw daal ko lii nag sa waay ne woon na man dong la ko wax yow moom dama ko mënut a bañ wax waaye yow ba bu ko kenn yëpp seex daal di génn daal di taala li ma lay wax nag yow dong laa ko sañ wax nag siin isa ut mi nga xaari koo xamante ne boo ko wóoloo mu war la boo ko joxee alal mu war la loo ko dénk mu yàq ko yonent bi nee na kooku ab naa fekk la muy jikko joo xamante nag ñett yëpp yëpp ñoo ngi koy seen société bi yàq der bi te ak jëw xam nga jëw nu mel jëw avant boobu Serigne As jigéen ñi na ngeen baal ma nag am nañu feemu jëw ay feew man ngaa toog ci seen biir ñu lay jëw te doo ko xam xam na li may wax boo déggee ñu naan borom néeg borom néeg baal ci biir mbooloo mi yow yaa ngi ne yaa ngi fekk si yow la nekk borom doom ji borom kumba si jigéen ñi fee mu jëw bi ñu yor nekk seen biir ñu lay jëw doo xam ne yow la léegi dana dana ma yàlla baal. yàlla comme yow xam nga ne li ngay def baaxul ba ngay wax yàgg na ma yàlla baal waaw noppi rek na ma yàlla baal te baalati waaye moom kay rek commencé nag fu la yàlla di baale jikko boobu nan ko bàyyi muy jikko jëw amul njëriñ amul njëriñ mi ngi mel sa doom sa doomu ndey génn àdduna ñu gas ko suul nit ñi dellu di jaalante yow nga ñëw sulli ko wut cin wut diw dagg sa yàpp wa di saab di lekk loolu moo jëw ñooy di ko dégg wax bi alquran moo ni an yuhibba an yakula laxma aqiihi mayitan mu ni fa karihtumuuhu mu ni jëw mi ngi mel ni nga bokk nit ndey baay mu génn àdduna ñu suul ko di jaalante yow nga dem sulli ko dagg yàpp wa saab seex di lekk alxuraan mu ne est kenn si yéen bëgg na loola ñu ni teg alxuraan ni fa karihtumuuhu xam naa ni sax loolu exemple boobu bëggu leen ko te nag xoola jëw ji léegi te jëw ak fen bokkul ñu bàyyi ko xel bu fekkee ni may wax sëriñ dëgg la may wax sëriñ aada waaye bu sëriñ aada toogoon du ma ko ma wax ko si loolu lay li may wax jiw dëgg lay doon waaye bu sëñ aada toogoon du ko wax te jëw nag sëñ bi ku ko gën a ñàkk jom xaw ma ko bala ngaa xam ne jëw kat a ñàkk jom nga jàpp ko dara la maa bu lay tontu romb koy dem waaye boo ne ko yaa wax nangam day jéem a am amul fit maa tey maa ko wax wóor na yàlla amul fit daa ñàkk jom rek jëwkat mu mel baaxul kon ñu bàyyi ko xel jëw nag ñaar la am na boo xamante ni da koy wax waaye nii am na nii jigéen xam ngeen bii xam ngeen boobu eh? toog ba sax ñoo nii loolu jëw la wala ñu lay piis di ko joxoñ loolu tamit jëw la kon waylun li kulli humazatin lumazah

ما كبر وارثنا ما كبر وارثنا ما كبر حميد حميد ما شاء الله. yonent bi dafa amoon ku ñëw ci moom. imaam ñoo ngi nuyu baax daal ni Seydina Muhammad dama bëgg a tuub yonent bi ni ko ñëwal mu ni ko waaye ñetti jikko mënuma ko bàyyi yonent bi ni ko ban ak ban mu ni ko damaa di nga wax jikko nag ko bàyyi yonent bi ni ko mu ni ko fenkat laa lu ma wax du dëgg te it mënumaa bàyyi fen yonent bi de teg ne ko ak ban mu ne ko njaaloo jigéen moom fu ma ko seen yaakaar daa war a ànd ak man njaaloo mënu ma ko bàyyi yonent bi ne ko ak ban mu ne ko sàcc sama loxo bi moom moo gën a gaaw lu ne lu ma jekku day dem ñett yii daal mënu ko bàyyi yonent bi ne ko naa la bàyyeeg ñaare te nga dimbali ma may ma benn bi rek nga bàyyi yonent bi ni ko bal yonent bi ni ko bàyyil fen dimbali ma rek bàyyil fen mu ne ko fen donc sàcc bi mu ne ko amul problème baax na mais booba arab dafa am jom li ma naan jom jom mu dem bay naan sàngara bi waa man su naanee sàngara dem jàkkaarloog Seydina Muhammad si biir nit ñi mu ne ma ndax da naan sàngara dinaa ko rus a wax waaw te su ma nee ko déedéet damay fen te it nit ñëpp bu mu ma naan ko damaa dama sàcc loolu day ñaaw foofu la jaar ba sàcctu mu jékki-jékki dem bay njaaloo ni man su ma jàkkaarloog Seydina Muhammad mu ma nga dinaa ko rus a wax waaw de jàkkaarloog ku mel ni yonent bi naan ko njaaloo naa la dinaa ko rus damaa fen fa la jaare ba bàyyi njaaloo yonent bi ni jullit bu bàyyee ñàkk a wax dëgg jikko ju ñaaw ju mu amoon jëlee nañ si moom alkazbu fen bidaayatul xataaya mooy début bépp ñaaw tef mu ni yonent bi nee na iyaakum wal kazb fa inna al kazaba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila al naar fenkat foo ko seen sawara dong la jëm amul feneen fu mu jëm du ajjana mukk yonent bi nee na képp koy ku dul wax dëgg sawara nga jëm bi ci topp mooy gaaw a mer yàq na seen société bi gaaw a mer gaaw a mer nekk ci kër di wujje ñu ma ñu ma baal détails yi ngay mer boo demee ci kër yi seen ñaari jigéen yu xuloo at ku dugg cent francs leen xuloo ku dugg ñàkk bu cent francs xale ku dugg ñu xuloo ci ñaari at te yeneen bi nee na ñaari jullit yu xuloo ñett fan te jubuwul ku si njëkk a faatu sawara nga jëm te leer na leen si baas bii boo demee am na ñaar ñoo xamante ne wallahi duñ tuddante si baas bii te yeneen bi nee na ñaari nit yu xuloo ñetti fan jubuwul ku si njëkk a faatu sawara nga jëm keneen ka bu jubóowul ak morom ma sawara la jëm waaye est ce que am na ku bëgg a dem sawara su ma àgg ne am na ko naan eh, su may àgg di baalu diw àq su may àgg di jubóob diw waaye su may daaneel seytaane ni naan ko lankan ëpp la fay la dégg nga li ma wax li ma wax nii am na ku naan su ma àggee jubóob diw su may daanelee seytaane moo naan la lankan ëpp la fay la buñ ko def seytaane xam na nu bëgg. ku leen a ànd ak yow dara jarul gaaw a jamono bi ni mu mettee boo si boolee mooñ ñu bu amul at boo xëyee sa kanam sens yenn saa yi da ngay dëkk jigéen si kër mu xëy da nga koy xool xam ne tey nekkul kanam gaa boo wut ab paas wut foo dem yéen a jëfandikoo loo wax muy ay nit du gaaw a mer day yàq jikko si kër yaa ngi boo gaawee mer xëy aju keneen xëy aju rek. xuloo am na jikko ji ñaaw na ci biir kër yi kon ñu bàyyi ko xel te nag jigéen ñee ko bi làq jigéen ñee ko bi xoola ki ñëwoon tiim Seydina Muhammad di ko yot di ko yot su fekk ko muy nelaw waa ji rocc jaas ji tiim Rasulullah daal di daal di tey jii li ma gënoon a bëgg am naa ko muy tiim yonent bi tey laa koy faat rocc jaas yonent bi ne xippit mu ne ko Muhammad kan mooy téema rey na tey yonent bi ne ko Allah waa ji tibb jaasi ji wat yonent bi ne ko xit jaasi ji ne ko kuy téema rey na tey xam nga lu ko waa ji wax yow da ngaa gore yow doo ware yonent bi ne ko demal waaye yéen est-ce que dugg leen Seydina Muhammad wa rahmatul muxtaar للكون كله محمد رمي nee na yërmande benn képp la yàlla jox àdduna bépp mu yërëm ñëpp mooy Seydina Muhammad ku bëgg Seydina Muhammad huwa rahmatu lmuxtaat lilkawni kullihi dara bi nu yàlla jox mu yërëm ñu ba bu dekkee yowmal qiyaam bu laaj baay bu laaj yaay bu laaj kenn danaan ayna ummati ala sama xeet wi nee na yërmaande jooju sayyidina Muhammad rek moom moo ko am. wa sitru yaxiiku yudaaxi nabiyi amul kenn kenn kuy dem ci keppaaru yonent yàlla Muhammad yàlla di xam ni sa sutura amatul yonent bi moo ñu ëmbal. sayyidina Muhammad طريق الله لذله مؤيم العماد ديني حافظ أصله النبي صلى الله عليه وسلم kon daaw a mer baaxul xoola soxna si ñëwoon invité yonent yàlla Muhammad bi mu invité Seydina Muhammad xam nga bu mu def jël am xar rey ko togg xar mi posone xar mi def si posen woo yoon ci yàlla Muhammad dem taaj bool bi daal si doon wat tuuti posen woo Seydina Muhammad bi mu ko woowee yonent bi ñëw yonent bi ñëw waa ko bool bi daal di jooy daal ni ko Seydina Muhammad ñu mën a dama laa sopp lool dama laa bëgg yow yonent yàlla Muhammad yaa ma gën a lu moo tax nag invité la reer yonent bi raxasu dugal loxoom ci bool bi rek yàpp yi ni ko laa takkul nii ya rasulallah fa innani masmuum yàpp yu yuuxu pooju ginnaaw pooju xar bi moo yuuxu yonent bi ni ko laa takkul nii bu ma lekk fa innani masmuum dan maa posale yonent bi xam nga noonu la mool daal ni soxna si lii loolu si jublu mu ne ko dama doon xool ba xam ne yow la yàlla yónni wala déet Seydina Mouhamed daal koy jéggal est-ce jikko jooju suñu ko amoon du baax kon ñu bàyyi ko xel gaaw a ber am na ku ñëwoon daan ni Seydina Mouhamed aw si nii lu may def pour baax dégg wax bi digal ma lu lu ma ko Seydina Mouhamed wax laa tax nga bul di mer laa tax nga bul di mer laa tax nga bul di mer kon mer euh, baaxul yonent bi nee na na nga yor jikko yi ak jafe sir man ata aka mu ne zil man ataaka ku la dox nag yombul jigéen ñi est-ce que mën ngeen ko koo xamante ni bu la rombee du la nuyu buy wax du la tudd yonent bi na boo ko rombee nuyu ko booy wax nekk koo tudd wax te nag jàpp naa ne soppee Seydina Muhammad mu ne zil man ataaka xoolal léegi senegal xullu xeex yàqante der loo xamal sa morom wax ko boo ko xamul sos da ngay dégg ñu naan Sénégal du sos day yokk wallahi ak ñu a sos yenn saa yi muy sos yonent bi ni koo xamante ni buy joxe bay tuuri yow doo am nee na booy joxe njëkk la jox ko kon loolu yombul bi si topp muy jikko ju tasaaroo muy alxasad muy kiñaan alxasuudu laa yasuudu yonent bi nee na foo fekk ku iñaan du am jàmm te yaa gis am na nit kuy jeex du ñëpp nag du koy jeex rek li may wax a tax déedéet man daa doon feebar waaye am na koy jeex iñaan doon ko tax a jeex am na xam dañoo iñaan ba mu ngi ñëw toog sax lekk ba suur wala naan ba mant ngir soxal alxasuudu laa yasuudu ya alxasadu yakulu alxasanat kama yakulu naar alxatab yaa gis iñaan su ma iñaanee Mansour feebar bi gën a bare te gën bon mooy iñaan su ma iñaanee soxna yande wala keneen ku mu doon balaa koo yande yëg dina fekk mu reete sama xol bépp may jeex di misère bu ma bu ma rombee sonu sama xol bi jeex ma boole di ko jiw te am na benn soxna Seydina Muhammad dafa am xale bu jigéen bu romb yére bu gudd diglu baax li may wax yére bu gudd lool soxna si taxaw ak Seydina Muhammad ni ko diw de yére bi daa gudd yonent bi jëlal sa baaraam dugal sa put mu dugal mu ko wàccul mu wàcc muy lumbu deret bu ñuy kut mu ko boo ko deewaale woon sawara nga jëm ñun nag dañ naan miin gaaram bii miin gaaram bi bennoon bii miin nga xewi di xoolal loolu ah miin baas am na am ñoo xam ne naan seen yére mooy miin baas miin xew miin dëkk bi lu sa yoon kon ñu ñu bàyyi ko xel iñaan baaxul kon iñaan jikko la boo xamante ni yonent bi nee na wala tabaadu wala taxaasadu wala tadaabaru wa kunu ibada allahi ixwana yonent bi nee na rikk waay rikk bu leen bañante bëggante leen te yàlla tax mbokk yi nanu bëggante te yàlla tax nanu yërëmante te yàlla tax koo xamul ku lay sang xamuñ ku lay sàng xamuñ ku lay suul boo ko bañee foo jëm entre parenthèse na ñaari wujj yu nekk ci biiru kër maa ngi wax na lu doy waar jigéen ñi bàyyi leen xel si li may wax da ngay sa wujj si biir kër nga fexe ba say doom ragal waaye bu yàlla xëyee xëy faat la nag wujj def saak doom yi fu ñu jëm est-ce que ñoo ngi koy bàyyi xel nekk ak sa wujj ci biir kër nga fexe ba ragal loo ko say doom ragal li xëy yàlla la doon nga defek wujjoo sa kër ga foo yëpp fan la ñu bu fekkee loolu am na noonu ko bàyyi xel te xamoo koy bàyyi ak say kon wala tabaadu wala taxaasadu monsieur le maire am na oto naa koy yéene xam nga lu jot sa sama soxna feebar guddi ma ñëw daane ko aal ma oto waaw su ko ñaane woon oto bi ba yéene wu ma ko boobu su ma ko soxlaa fu ma jëm kon wala taxasadu wala tadaabaru bu leen warante ginnaaw bu du mooyantewu nanu doon benn doon ay mbokk bi ci topp mooy suu zanni ñaaw njort alquran nee na bu leen ñaaw njort ñaaw njort na ñoo xamante ne àgg dañ ab ñaaw njort ñaar ñu wax ñu ni man la muy waxal ñaar ñuy déeyante imagine nekk si kër te kenn du wax am na jigéen ñoo xamante ni ngeen baal ma tey dégg ngeen di jigéen ñi yéen ma woon ak moo tax ñu ma wàññi exemple si góor ñi comme jigéen ñi si jigéen ñi laay jël exemple am na jigéen juy nekk ci kër kenn du reetaan boo reetaana mu ne man la nga ree waaye léegi nit ñi dañuy xëy ni muñ ñu rek nekk ci kenn du reetaan père maa ngi lay ku reetal nga ni man la ni ree nekk ci kër ñaar bu ñu wét bu ñu wét nga ni fi man la nekk am na ñoo xam ne dañoo ñaaw njort te ñaaw njort te ñaaw njort te loolu baaxul nit ñi dinañ waxtaan de nit ñi dinañ wét nit ñi dinañ ree waaye bu ñu ree nga ni man la ni ree bu ñu doxee nga ni fi man la nekk loolu it ñu bay ko xel wala tajassasu yëndu bi yëndu bi yëndu tey yéen bi nekk sa kër ak sa wut sa borom kër ay si moom jaajëf ngay romb romb lu si néeg yi romb jigéen ñi dina xam nga wax loolu yàlla xam na ko ñoom barke ah barke alxuraan ah, xam na li may wax ah moom ñoo xam na ko. mais jigéen ñi dañuy ñibbi. ah non c'est que jigéen ñi ñooy sama ñoo. waaye delluwaat ci njàngalem Seydina Muhammad en tant que jullit roy yonent yàlla Muhammad mi nga xamante ni moom la yàlla yónni mu gën di sunu kilifa xam naa dañ koy tëj rek ndax ni mu demee waaye ñu joxe conclusion cinq minutes ni pour ñu baax il faut que ñu ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa pour bu nu sunu dund neex il faut ñu roy yonent bi yar ndaw ñi jéem a xam suñuy farata mooy lan suñuy devoir ñu nekk sa jéem a bàyyi xelit ni ay jullit lañu ñun ñëpp jullit nag amul lu ëpp njàngalam ka nga xamante ni léppam lu baax la mooy Seydina Muhammad yàlla moo nu waxoon ni xul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaxfir lakum boo leen bëggee jub ci àdduna jub alaaxira ma bëgg leen dangeen ngeen di ànd ak Seydina Muhammad kon en tant que nag fi nu toll ci jikko yu yàqu yi nanu xool yonent yàlla Muhammad ci ak muñam xoolal soxna si ñëwoon di tuur mbalit ci kër yonent yàlla Muhammad bu xëyee dee wut neefaree fas ak neefaree nag di ko tuur ci kër yonent bi yonent bi toog ñetti fan gisu ko mu laajte ñu ne ko soxna si daa feebar yonent bi si ak mbaaxam dafa dem pour seeti soxna soosa bi mu seetee soxna si ba ñëw yaa pendaloo bu pendaloo la waaw après dinaa si joxe kàddu yi incha allah léegi bu fekkee ni bi yonent bi ñëwee daal di nuyu soxna si soxna si daal ni ko yow la kat mu ne ko man la Muhammad mu ni ko Muhammad looy dox mu ni ko damaa xëy ñetti fan gisuma dëkk gisuma mbalit sama kër te yaako daan indi ma laaj ñu ni da feebar ma seet si la soxna si ne ko li ma la lebal si kërug adduna si ak mbon nga attan lii ku yàlla bind yaa ko gën daanu ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah mu nu yonent bi lakka ñeel na la mucjisaatun ay kiimtaan yoo xamante ni ajasat lottal na képp kuy mindeef mu ni yonent bi yaay borom kéemtaan yi nga xamante ni yàlla bindul nit muy am kéemtaan yu tolloo kéemtaanu Seydina Muhammad nee ko say kéemtaan lottal na képp kuy mindeef ngëneelu yonent yàlla Muhammad nit mënu ko natt ba naan fiila la commencé ak fii la yem mu ni yaa sayda yow mi nga xamante ne yaay sangub yaay sangub sang yi sayyidina Muhammad dikk naa dëgg mën la wut si la yow rasulullah maa ngi yaakaar sa yërmande yowmal qiyam maa ngi yaakaar yowmal qiyam nga gërëm ma ñun ñëpp yàlla nañu ànd ak yonent maa ngi seedeel yàlla ni man ku bëgg rasulullahi la ku sopp Seydina Muhammad la yaay ki nga xamante ni yow rasulullahi budul woon ak yow du bind kenn yow Seydina yàlla du bind mbindeef lu yàlla bind yonent bee yaay ki nga xamante ni yow Seydina Muhammad keroog bi yàlla yëkkati aadama subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa bi yàlla yëkkati saydina muhammad mu jóge nag umu aani mu yónni arburax mu ànd ak jibril xotti baytul laxmi jaar tuur sina baytul muqaddis dem baytul muqaddis jiite anbiyaawu yëpp fa taxaddamta li salaatin fasallu kulluhum mu'tadin wa anta al imaamu mu ni ko lakka mu'jizaatu yow Seydina Muhammad yaay ki nga xamante ni yow rasulullah nee na ku bëgg a dem àjjana yonent bi ramm la nga dugg àjjana bëggal Seydina Muhammad rabbum yowmal qiyaam Seydina Muhammad a ko yor nee wa kazalika lii ma lay waxit moo dal yonent yàlla Moussa mus mus sa di wéeru si rasulullah di yaakaar nga ramm ko yowmal qiyaam yow Seydina Muhammad ana ñi bëgg rasulullah ku bëgg Seydina Muhammad jubal taxaw ku taxaw yàlla na nga siyaari rasulullah yaa yor yaa yeyoo cant yaa yàlla daraja ji mu jox yonent yàlla muhammad borom yi may la mooy kii tubb jaami tey ak mooy borom ngëneeli rasulullah mooy borom leer gi matale adduna bu dul woon ak rasulullah nit du xam kenn du xam sa ci moom la yàlla ubbee. manga seen xewal yépp. bu dul woon ak rasululaahi baayu Fatima baayu Roqaya maami Seexu Tijaan yaakaaru jaami ñool màkk bu dul woon ak moom. yàlla du amal benn bidéew. bu dul woon ak bi jant bi du am. Mansour bu dul woon ak sa turandoo yàlla du bind weer. bu du woon ak Seydina Mouhamed Ndiaye àll du am bu du woon ak Rasulullah nit du am malaayika yàlla nga ko amale si leerug saasum yaag soxna Roqeya ak ñi ngeen ko bokkal ñoo ngi gërëm ñëpp di leen jaajëfal yal nañ ko teewe déwén monsieur le maire sunu ndijaay sunu xarit yal na yàlla dolli la wér sa taxawu di nuyu nag damaa juum sax avant may nuyu monsieur le maire damaa waroon a nuyu sama sang bële sa ginnaaw comme korite gi daa jub sa amaguma yére nuyu naa la Ibra Diagne yow laa waroon a njëkk nuyu ndax yaay sama sang doog a nuyu sama nijaay ñoo ngi nuyu ñëpp yal nañu ko teewee déwén yàlla bu muy sunu mujj koor yàlla na yàlla baaxal leen jigéen ñi yal na yàlla fay leen ay jàmbaar dëgg ngeen bàyyi taala nee na kër gu jigéen amul ñaar dong lay doon quartier wala daara rek karte neexul daara neexul bàyyi taala si sa nee na kër gu jigéen nekkul ñaar dong lay doon daara wala quartier benn neexu si yéen man si ñëpp. donte exemple baa ngi koy jël naan jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi waaye la ma waxoon laay wax rek islam bu amee doole jigéen ñi ko waral yaa Xadija mooy seen référence islam bu amee doole jigéen a ko waral su Sumaya mooy seen référence maam Amari Ndak li muy baax baax baax lu mu am yaa Ndak Fall ku ko may Serigne tubaa li muy baax baax baax lu mu am maam Jaara bu la kon yéenay jàmbaar yi yéen la ñëpp wóolu. lu waaye di liggéey te joxu leen ko day échec kër diine yi sax sëñ Ibrahima Seck nee woon na bu Samba Sadio dekkiwaatoon fitalu guddi yi yéen la koy jox monsieur le maire mii bu nu taajoon góor ñi tànn jigéen ñi mu ànd ak yéen gàmmukat yeeg firikat yi bu nu taajoon góor ñi tànn jigéen ñi ñu ànd ak yéen yéen a man si kër gi yéen a man si diine ci yàlla na ya ah man si baas yi kon ñoo ngi taxawandi foofu di ñaan rek jéggulu danoo jëm ba ndar bi nu toogee fii rek si la ñu woo sunu benn goro bu bu wàññeeku ngay ngay bàyyi du may jaara sama nijaay pam bu be xam na ko ñu bëgg a daw rek dem foofa wajjeekuwaat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni woon ma bokk si délégation Alpha Sarr di doomam bokk si yaa amintaloo jiite ko waa këram ñépp ñëw nañ damay bañ a lim mu ni dafa am ngànt ak waaye nag yónnee na gu ànd ak kersa mu ni enveloppe bi nga jële fii léegi yaakaar na soxna saa suma ko jël mooy enveloppe am nee na da a ñëw ba këram waxal ko kàddu yi ngor kàddu yi teraanga mu amoon yéene teewe ko waaye ngant am mu yabal këram gorom yëpp ak doomam ñëw nañu ak rakkam amantaloo mu yónni waalañu ak Alpha Sarr nee na kontaan na lool gërëm na leen am na mbégte asalaamualeykum wa rahmatullah